armes yi mu ngi ñu loger présidence werante am ci ci eaux et forêts et cetera ministère des armées et cetera tout ça mais y a des yu ñuy nekk fii si réew mi yëguñu woon sax loolu beneen bi maître Moussa Diop mi ñu jàppoon yóbbu kaso du fii la taxawal brandir un document ne am na ay ngànnaay yu ñu jënd mu nga palais présidentiel te kenn amul xaalis boobu fu mu jaar amul benn traçabilité tu as vu président mattisal mii moo xëy jël décret ne autorisé tul ministère yi ñuy jënd oto xam nga lu taxoon mu def loolu journaliste ngeen loolu yàggut jur na fi coow si réew mi ay ministère ñoo jël koppar dem di jënd ay oto te respecté wuñ procédure bi Macky Sall mer ca loolu xëy décret autorisé tul benn ci la waxoon ni sax oto yi daf koy nangu loolu xew na fii si réew mi loolu fu mu jaar alal jooju fu mu jaar c'est-à-dire ñàkk gëm le premier ministre nit mën nga bañ a ànd ak moom mais ni nga accordelee nit ki présomption d'innocence noonu nga mën a accorder aussi le premier ministre bonne fois jusqu'à preuve du contraire ci li mu wax parce que c'est le premier ministre quoi que l'on puisse am na dossier yu mu yor mais mënoon ni la mu génnee yépp en tant que premier ministre du dëgg loo ko bañ bañ bañ loo ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk ànd ak moom mais nangul ko bon foi jusqu'à preuve du contraire ñamu tudd c'est des responsables daañ gën man j'en suis sûr et certain même daaneel. parce que a les dossiers wax bi c'est parce que dafa toog fu dëgër léegi taxal moom nga tax ma ne la jusqu'à preuve du contraire Fatima nit bu dee nekk si logique aussi dama ko bàyyi mu arrangé foofu laa jëm léegi jusqu'à preuve du contraire boobu xam nga lu muy tekki ah. ñamu tudd ñàkkul ni daañ gën indi ay rebondissement par rapport ak moom la nga xamante ni wax na ko. d'accord ñàkk gëm premier ministre ku gëmul premier ministre. Mm. bul gëm ni rapport Covid 19 bi am na. Mm-hmm. ku ko gëmul rek si li mu wax gëmal ni rapport Covid 19 bi amut yéen a ngi wax FMI. Mm-hmm. FMI yéen a ko wax. Mm-hmm. FMI trompé wuñ ko si rapport Covid 19 bii. lan moo tax rapport Covid 19 bi génn ngeen yaakaar ni bonne foi moo tax Macky Sall génn Macky Sall ne moo woon maa jël dossier yi teg sama coñ bu ci bonne foi am la génnee wi rapport Covid 19 bi non parce que FMI moo ko teg pression ne ko génne rapport bi parce que alalam da caa alalam dafa dugg ci biir force ko kii fonds Covid 19 yi ñu doon dajale pour dimbali nit ñi. dañu xes nañ cotisation yi. FMI moo cotisé dama ne. cotisation yi FMI dafa joxe participation sénégalais yu cotisé sénégalais ñuy cotisé à hauteur de vingt milliards ci li entreprise de presse yi joxe li li déglu mox la li maire jar gerte caaf bi bu dee chroniqueur nga damay laaj un chroniqueur diñ de selon dafa war a dem def des recherches bu dee débat bi daf la raw da dem toog na ba ñu pare foofu lañ toll FMI moo mettre la pression sur le gouvernement nekkoon na rapport bi génn pour ñu xam looloo war a rapport bi génn lan moo tax yeneen rapports yi génnul woon yi président Bassirou Diomaye Faye génnul bee génn contradiction boobu paradoxe boobu ci am mais foofu rek war ngeen fa poser des interrogations lu tax bee génn te yii génnut parce que FMI moo ne ne rapport bi génn rapport bi génn ñu def des révélations scandaleuses parce que dañ ko non seulement du ma wax sax fan du mu tudd doot ma mais dañ ko trompé FMI si boppam rapport ba génn mm. la rapport ba génn dem leen liir ko yow xam naa ne liiruloo ko mais dem leen liir rapport ba génne nga xam ni sénégalais yi sañ nañ lu ne suñu gouvernants yi sañ lañ lu ne Moustapha Cissé seloo ñoom la àndaloon nekk seen député jaare seen liste moo taxaw assemblée nationale wax loolu ne bu bis bu sénégalais yi xamee la ngeen nekkee àdduna bi tukki Moustapha si seloo ko wax mu sekk mi nga fan wax na ko kon jàpp naa ni mbir mi bu la premier ministre waxee lii fii rek la am ci suñu réew yi un premier ministre wala un président génn ne nangam ak nangam ay sénégalais de mauvaise foi génn ne ko la wax la nga wax du dëgg te teguñu ko fenn maintenant da nga koy argumenté. d'accord maintenant kuy weddi premier ministre génnal argumenté ko techniquement et scientifiquement bu boobaa nag sénégalais yi danañ am latitude mën a analyser parce que le sénégalais nag d'aujourd'hui mën na analyse mën na def euh, euh, mën na analyser. la nga xamante ni mooy tukkee ci président de la république ak la nga xamante ni mooy tukkee si ñeneen ñi nga xamante ni ànduñu ak moom mais il faut lui accorder bon foi jusqu'à preuve du contraire jusqu'à naka la ñu mën a naxee FMI nax bi nga xamante ne tege na ndax ndax banque yi rek dem fa leb leen procédure la boo xamante ne non seulement dina yàgg dina gudd mais dinañ enquête ba xam fu wóor fi ñuy dugal seen xaalis ah, donc lan moo tax FMI aujourd'hui di di di di di di fonds yoo xamante ni comme on dit sur le plan international Sénégal mën leen a berner ci ay chiffres quand même xam ci nekk rek sa xel xam nga ni ñi waxuñ dëgg moom sa xel maanaam ku ci nekk looloo neex ci réew mi la laaj waaw xaaral d'accord parce que xam li ma gën a neex li ma gën a neex ji li ma njëkk a wax moom tegu ci baat ci laa xam ne amu ci wax amu ci lu muy wax gis nga ak a mën a li ma njëkk a wax fi ma ubbee waxu ci dara dinaa ci ñëw maa ngi dégg mu naan waxoon nañ ko mooy ku ci mel ni Yérim Seck Yérim li wax bari na de Yérim wax na fi benn xale bu. ci FMI la la laaj. tontu ci FMI xam naa ne sa xam-xam yëggut foofu moo tax mënuloo tontu question bi c'est un débat technique laaju la Yérim de. FMI la la laaj. un question une technique tontul foofu li nga wax. billaahi laa la waatal du tontu ci loolu. parce amul niveau boobu amul capacité boobu. dinaa ñëw de tontu. la laaj FMI ngay wax Yérim wala FMI yi égal yi de waaw baax na jàpp si rek. ñu ngi lay déglu waaye kan lañ ci FMI du moom waaw moo dafa tudd Cheikh Yérim ne waxoon na ko mais Cheikh Yérim nag li wax daa bari Cheikh Yérim wax na fi vingt millions de dollars yu jóge Qatar yoo xam ne gafa ko gum dugg fan lañ ko dugal kan la ko tuddal Ousmane Sonko de la ci tudd Yérim a wax loolu kon tey yaa fi nekk avocat Yérim d'accord Yérim wax na fi tamit benn xale bu jigéen gambien bu newoon ci corniche bi ñu ko doon saay-saay Yérim ma ko wax de am na kum ca tuddoon waxi Yérim la jëlal ñaari wax yooyu nga boole ko Yérim ma ko wax nag man du samay wax gis nga mi juin la fi ñëwoon bu fekkoon état bi njuuj njaaj na ko lu mu ndaw ndaw ndaw bi régime bee demee ñëw bu FMI ñëwee da koy wax mois de juin la fi ñëwoon ne liquidité sax am na ci réew mi Yérim moom muy wax Yérim génn ne trois cent vingt milliards la fi Macky Sall bàyyi liquide te Yirim liggéeyewul FMI FMI ak Yirim déggoowuñ moom it loolu wax Yirim la da ko war a boole ci waxam FMI ñëw fi ne Sénégal eurobond bi mu leb sax wur koon leb fi la fekk fi la ma fekk kon FMI moomu nan lañ ko tegee dil FMI moom nan lañ ko naxee FMI moom nan lañ falsifié ay ay ay documents yóbbul ko ko sawaay li ma waxaat sànq rek wax ji Ousmane Sonko la engage ak ñi ko gëm bëyam yeeg xaram yi ko gëm ñoom la engagé engagé wu la yow engagé wu la yow engagé wu ma man moom mi sax gëmu ko daa faral Ousmane rek waaye xam na ni moom loolu moom waxi ngelaw la te nag dafa jël Sénégal nag bi crédibilité Sénégal moom la dem joué ji xaw ma de efe bi moom leer na ne moom sax li waa ji wax moom amul effet bi moom moom loolu du sama problème ak effet bi suñ soxlaa suñ ñeneen so ñun moom gëwuma sax mu lebal ñu parce nag. kii mu jàkkaar lool di ko du ko wax li am benn gis nga buggaan dani bi muy wax buggaan lim tëdd démb kenn kenn amu ci wax voilà kenn amu ci lu mu wax léegi xam nga problème bi mooy lépp li ñu li ma la wax muy lépp daal FMI la ñuy xaar mu ñëw ne man kat lii lañ ma naxee siifur yaa ngi nii lii fii lañ jaar ak man lii la moo joxe xaalisam ah nest moom dina ko topp te ku mu jox xaalis